بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بوكي تذكرة الطلاب بعلم الإعراب نعلن ليدرين زيارة بنانس ربي تبارك وتعالى مدفع للتوفيق سدف لنكم نب جناب وخم تعمل سورة الحاقة ما الحاقة وما أدريك ما الحاقة sun borom tabaraku taala mu nekkon sar wo xamne da naka 90% ci mawdu adi mu lambo moy bis penc newoon naa la ñett ñetti mawdu lambo ñetti tem tem bu njëkki mooy lu aj ci mbirum bis te newoon naa la quatre-vingt-dix pour yi mooy lu aj ci wàllu bis penc euh, bu ñaari tem mooy tudd ñaari xeet maanaam tudd ñaari xeet yoo xam ne nekkoon nañ fi su borom alag leen te la tax mu alag leen mooy weddi gi ñu wedoon bis penc kazabat wa aadum bil qaari'a tem bi mujj mooy lan lu aju ci lu jëm ci yuntu bi salaam defal ko ak setal ko ci tuuma yi ñu tegal ak yit seedal alquran ak tag alquran ak xamel melokaan ni nga xam alquran am na waye man nga ne saar yi lépp bis penc la même saaru ci tege buñ ci paré moy suratul maarij bi saala sa'ilun bi azabi waaqia loolu it daanaka quatre yi lu ci wàllu bis penc lay wax insha allahu tabaraka taala kon da waye nak boko xol da nga gis ñaari mawdu kep la moy li suñ borom tabaraka taala أه، بما هي الحاقة ما الحاقة وما أدريك ما الحاقة ولو ما أدراك ما الحاقة نخمن بسبنج الحاقة بسبنج نخمن بسبنج لما بسبنج نخمن بسبنج غير بقول لك خمن رأي بسبنج صح مرة لا يجح نيار إكزامبل ولا لما نيانت إكزامبل مجوك لنيانت خير يا خان لين فين كون تلا تحسن مرة على غير ما يود يجيني ود بسبنج زعمنكو mooy giiru samud ak giiruk aad ak giir ak firawna ak ña ko jiitu wala neexe nga ne firawna ak ñam ñam àndaloon ak nitu luut ya al jaa firawnu wa qawmuhu subhanallahi alazim wa jaa firawnu wa man qablahu wal mu'tafikaatu bil xaatia ginnaaw bi bi suñ borom pare ñëw ci bis penc nag yowmal qiyaam ni muy demee doomi aadama la ñoo dekk mbir yi ni muy ko ci bu àdduna tukkee diir bi ñu bi ñu tëddaat bu ñuy dekk ni yamal xiyam tambale nga xamne alquran mbir la mo xamne li tax sun borom taala ci muju saaru sun borom muju saaru sun borom ko tuddee innaha manam wa inna wa innahu la tafakkaru lil muttaqin wa inna la na'lamu anna minkum mukaththibin wa innahu la hasratun ala kafirin wa innahu la haqqul yaqin ma li tax sun borom tuddee alquran haqqul yaqin moy bis penc damay demee bi ñu dekk nañuy dekke nay fi démé lolu sun alquran da la koy necc ba mel yaangi yaangi yaa ngi ak mom kon ñu ngi daanele woon fi suñu borom waxee nii fi tàmbalee tàmbale fa isa nufixa fi suur nafxatun waxida mooy genn ak walla doon doomi aadama yi dikk la defoon ci bantaan yaa koy jël daa koy boole ci la koy dëbb mu daal mujj nekk benn suuf rek nekk benn pàkk bu tàlli ñay moom la suñu borom di wax ci suuratu Taaha wa yazaruha qaa'in safsafan laa tara fiha iwajan wala amta gis nga asamaan si daal di xar def ay pàcc pàcc daal di doyee lool malaaka yi taxaw ci wet ga am juróom juróom-ñetti malaaka yoo xam ne bu keroogee dañuy jële arash dañuy yenu arash ñooy gàddu arash juróom yooyu yu ñu daal di ne kenn kenn ci ñoom rek kenn ku ci nekk daanaka la dox ci diggante ker ker nopp ba ak ci baat bi mooy tolloog nga doon dox juróomi téeméer ak wala iyaasu muy ci xadis biir boo xam ne al imam Ahmad nettal na ko ci musnad al imam Ibnu Kasir wéeral sanad bi ne bu loolu amee nag yawma idin tu'raduna la taxfa minkum xaafiya bis boobu bii nag moom la ñu leen di gaaral mooy moom la ñu leen di indi teg leen di leen xisaab lépp lu ngeen jëfoon daan ko nëbbu wala mu nekk loo xam yéen képp ko xamoon doomi aadama yi xamuñ ko woon ci yéen wala lépp lu ngeen daan nëbbu keroog lay feeñ dara du nëbbu dara ci seeni jëf yu ngeen daan nëbbu keroog nëbbu day feeñ muy laay ju day war si léegi nag suñu borom taala ba tey mi ngi ci même mawdu bi kon suñu borom génn mawdu foofu ba mi ngi ci même tam bi mi ci mawdu bi mi ngi àggale yi nan la yëf yi di continuer nan la yëf yi nag manam xam nga da wax ne yow ma bis boobee nag tuuriduna des na len garal yéen ñep wa borom xam dañu soxla doon yéen ñëpp mooy nit ak jinne yep su borom garal len wa jaa rabbuka wal malaku safan safa wa jii ayyuma yowma idin bi jahannam subhanallahi alazim waaw akhi la takhfa minkum khafiya dara du nëbb ci yeen boobaa nag bu ñu xisaaba pare nag résultat yi su borom xam nga bi mbirum yowal qiyam day xawu ndurum mbirum resultat rek legi def nañ examen yi pare xisaab nañ ba pare légui bu ñu bi fa wuri yi génn moy bulletin yi kay bi mbokk yi ko ne xam ne doomi aadama bi mu bi mu nekkee ci addu dund sun borom da koy da koy daa yebaloon ci ñoo ay malaka yo xam ne ñoo koy topp di ko serfin li muy def yëpp ñu koy bind li yàlla wax ne kala bal tukadibuuna bid din wa inna alaykum la kiraman katibin gis nga maa yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid gis nga ci suratul qaaf ci suratul majid bu faatoo nag dañ koy topp ba ni mu faatu bu xasee ba faatu ba ruux génn malaaka yi daane xel ma ne ah mm, ne ne téere mat na téere boobu bii nag yomal moom la ñuy gaaral lañ bët ko daal koy peese ci place xool la ca baax ak la ca bon la ca baax bu ëppee nag kooko bokk na ci ñi nar dem na la ca bon bu ëppee it kooko it bokk na ñi war dem sawara téere boobu nga xam ne malaaka yi moom lañ toppi woon doon ko lijjanti ba mat bi nga faaru ñu la dukkee mool téere boobu lañ fas yéene moom lañ fas moom ah, def ko mu xaar na def ko pare nag jox la ab ba pare nag jox la sa téere nga daan nangu ñaar loxo la doomi adama la doomi adama am loxol ndey ak loxol ñaari benn nga nangu ko ci benn mooy nga nangu ko sa loxo nangu boo ko nangoo sa loxo sa loxo day jor rek loolu rëcc loolu mandarga la muy tekki ne bokk ci ñi war dem aljanna waaye boo ko nangoo sa loxo càmmoñ mandarga bi tekki da ngaa war bokk ci dem sawar yàlla ci léegi nag loolu mooy résultat yi mooy bu bu kay di di moo tax Aïcha jooy na jooy métti asa nak looy jooy mu ne ko dama fàttali yow xam da di tiit ne ko ndax yow ma xiyam yéen di ngeen fàttali seen waa kër ak seen njaboot moo ne ñetti bërëb yi moom kenn du fàttali kenn du dajaa bokk mooy lan maanaam bu ñu xisaabee ba kay di war a wadd xeet wu nekk fas yéene jël sa bulletin inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yal na suñu borom tabaraka wa taala boolal ci ñi nga xam ne bi ñu jël seen bulletin seen loxo moom yunti aysa nee na euh, man yonent bi ak yonent yëpp mën nañ leen waaye feneen waaye ñetti bërëb yi nga xam ne bulletin yaa ngi wadd nga xam day toll day day tombe jamono timis ci bis boobu nga xam ne bokk ta bis yi bu ñu jamono timis du timis yi nga xam la déedéet waaye timis timisub bis booba ndax bis moom na muy toll mooy juróom fukki junni at comme ni ko yàlla ni ko farale leer la ci weren saar wi fi yawmin kaana miqdaaruhu xamsiina alfa nga xam ne woori woori timis doon ca bis booba bu ko defee mm, borom tabaaraka boole ci ñoom ñi nga xam ne ba ñuy nangu seen kayit dañ koy nangoo seen loxo ndeyjoor léegi nag kayit yooyu buy wadd ñu joxe kayit yi nga xam ne ñaara am imma fil janna wa imma fil naar benn aljana wala safara yàlla ngeen musul ci bu ñaari ba te te may bu njëkk ba bu yod moom la yàlla nettali ci laay yi di ñëw fa amma man utiya wala fa amma man utiya kitaabahu bi yamini fa yaqulu haa'umu qra'u kitaabiya inni ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية الله أكبر يا رجال بولا sunu borom tabaraka taala comme ni ko imam ibnu kathir di waxe ya, sunu borom mi ngi xibaar ci laay ji maanaam ñaari kuréel yi mooy ñi war a jëlee nang ñi nga xam ne bu ñuy nangu xeer ak yër seen loxo ndajor lañ koy nangoo kuréel boobu waaw sunu borom day xibaar maanaam mbégte mi nga xam ne moom la moom moom la nar a am moom moom moom képp moom ñi nga xam ñi nga xam ne dañuy jël dañuy jël si maanaam dañuy nangoo seen day yoon su borom nee na fa amma man ginnaaw bu ñu xisaabee par nag fa amma man bu dee ka nga xam ne fa amma man bu dee képp koo xam ne fa amma man bu dee képp koo xam ne uutiye jox nañ ko kitabahu ab téeréem bi yaminihi ci loxob ndeyjooram ba nga xam ne dañ ko jox téere bi mu jël ko ci loxob ndeyjooram ba nga xam ne nang gi ko nangu ci loxob ndeyjoor ba rek bu ba day tekki ne boobaa nag da am na question bi posé ndax yaay xool loxo bi la neex wala loxo bi nga war loxo bi loxo maanaam euh, loxo bi loxo bi suñu borom dogal ci ne ci nga war a nangoo maanaam loxo loxo bi nga war a jëm rek bu dee ndeyjoor moo jëm àjjana bu dee euh, càmmoñ moo jëm sa sawara wala noko bi nga wara jël rek bo nga war jël la chaque bu tagi ne bu fekkoon ni loxo bu la neex ya nangoo ñëpp loxo ndeyjoor la ñu nangu waaye nag kenn ku nekk fa nga war jëm mom ak na nga sa résultat na war a jëm mom loxo bopp képp nga ma a nangoo no jël benen fi fofu tiir si am fa moo tax yomal qiyam bukk tak aduna fofu dañ lay contrôler tiir si mënu fa am moo tax sim sa jóob kokki ne yow ma yomal xiyaam wóorut na ma rebe bëgg dee neena yow wax xiyam wóorut wallahi wax nga dëgg wax ju xoroma na waaye wér way way waaye lu wér sun borom neena wa fa amma man bu kep ko koo xam ya, jox nañ ko kitabahu ab téeréem bi yaminihi mu jël ko ci loxom day joram ba ah mu tek na kon ci ku wara a lo ko war dem aljanna bu fa wana day beg beg go xam sun borom neena na ci man ni lay def manam ni lay mujjé fa yaqulu day wax nan ginnaaw bu gisal day kontaan kontaan gu kontaan gu day waar kontaan gu jéggi dayoo kontaan boo xam ne ndax tiitaange boo xam ne tiit nga ba sa xol bi àggoon sa sa bulit idil qulubu la dal xanaa jëri kaasimin ni ko yàlla waxee ci sóotu kii la nga doon ragal lépp nga am nga am mandarga wala nga am ay preuve yu tekk ne la nga doon ragal moom mucc ca loolu kontaan ngay gàntaan moom suñ bi waaw tiitaan boo xam ne suñu borom ni mu ko leeral ci sóotu maxaadi dinañ ko firi يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه buñ la woon nañ jël ñëpp dugal leen sawar yow nga mucc nga nangu ànd ak lu tax nga yow xam nga ni mucc nga kon loolu moo tax su borom da ne wa fa yaqul day wax nan mom kep kuñ jox kii bo da ngay kontaan ba da ngay wax ne am day wax nan ha umu برب ها أمو نعم آه، ها أمو كايلين جنجل برب ها أمو دفع أم نياري وخ شوار مخم خمي بين لير برموشي بير برموشي جنا بير آه دام ها أمو لبي في موي موي خذو manam ha gibu ande kam zagi moy am moy jelal moy khuz moy am jelal ha umu fi day fi jelal len mboolem na jël leen jël leen am leen am ñu ne haa umu mooy taalaw mooy mooy kaay leen kon ñaari firi am na ci dafa am ñu ne haa umu qra'u da nga jël haa umu jël leen bi maana xudu nga xam day nekk ci njàng naxaw day nekk ismu fiil amr ismu fiil amr lay doon wala mu nekk taalaw maanaam taalaw mooy kaay leen am leen téere bi wala kaay leen yéen ngeen ñëw xool ñaari ñaari nag ñaari boo ko boo ko ci yéen bu baax waaye ban moo ci gën a wér mooy ne bii firi euh, maanaam am leen xuzu mooy kaay leen jël jël leen waaye da nga gis na ñaari wax yi fi ñaari wax yi daanaka benn la ndax bu fekkee dañu leen faaw ba ñu jóg faaw ñu dikk moo tax léegi-léegi loolu la wax ixtilaafu tadaab mooy baat boo xam ne war a xam ne ci wute wuute gi euh, lafz la maam ci baat rek la maam nañ ko waxee la waaye lañu ñuy wax benn la ñi wax ne ha umo mooy firi kaay leen ak ñi ne mooy kay jël leen ñaari wax yi dàqontiwul boo ko santalee ndax ñi ne li muy teg mooy am leen bala ñoo am moom bala bala ñoo jël moom faaw ñu kaay faaw ñu ñëw kazalik dégg kon suñu borom ne ne boobaa fa yaqul day wax ne haa umu am leen mooy kaay jël leen iqra'u jàng leen kitaab yi sama téere bi iqra'u jàng leen kitaab yi sama téere bi kaay leen kaay leen ngeen xool kaay leen ngeen xool sama téere kaay leen ngeen xool sama bulletin sama résultat kaay leen ngeen jàng sama téere Euh, loolu mooy lan mooy ki nga xam ne dañ koo jox loo xam euh, téere bu jox loo xam ne xam ne mucc na malgré nag diggante mën naa di la tiitaango met nga ndax moom ay étape la war xam yoo xam ne mën ngaa nekk ci diggante boo ne da ngay bég waaye bala nga dugg ajjana nga jaar ci yeneen étape yoo xam ne da ngay tiitaan ba mel ni kon suñu borom nee na kooku la muy wax ma day ne ha umu qra'u Eh, kay len ngeen jël naam ha um am len kitab iqra'u iqra'u jang len kitab yo sama téré ñew len ngeen ñew jang sama téré bi ndax lan kontaan kitab ya waaw yéen ki yàlla boobu képp koo xam sa téré ci loxo ndajooree su borom yoolu netali maam ni ngay réagir kéro ci kéro mbindeef yëpp pak ba sali ñaari ci kéro mbindeef yëpp ngay li ñu wax jubilé wala bépp mbégte boo xam ne da ngay sàkk ci doomi aadama ñëw jàngal jàngale sa téere sa doomi aadama taruñ la noonu lay def léegi moo tax foofu njëkk ñu joxe résultat yi day day kii laa ngi day am Aïcha wax na jooy na jooy métti dafa ne ko maa yëb kiig la moo la jooyloo Aïcha ne ko zakartu naara fa bakaytu fa hal tazkuruna ahlikum yawma alqiyama dama fàttaliku sawara sama xel ni sawara ma daan ne ma daal di xar ma daal di tiit na ndax yéen yéen kilifa yéen ñu baax ñi ndax yowmal xiyaam moom di ngeen bàyyi xel seen waa kër a seen i mbokk ak seen jegeñaa ak ñi leen xamoon yéen def ne ko amma fi salaati mawatina fala yadkuru ahadun ah-, ahada am na ñetti bërëb ñetti waxtu yowmal xiyaam foo xam ne moom muy ab yérante muy man kenn du fa xatu kenn ñëppay tiit nga xam ne yonent bi alayhi salaam du du fàttali kenn ñetti bërëb yooyu ñetti bërëb mooy mooy indal misaan xataa ya'lama ay xafu misaanuhu am yusxul wa inde tatayir mooy bu jamono jamono ji nga xam ne ñu ngi peese mooy jamono ji nga xam ne malaayika yi ña nga nekk ci peese jëf ji yaa ngi taxaw di xaar ndax ndax say tiyaab ba mooy ëpp yi jamono yooyu taxaw di xaar moom xaw ma kan waaye sa xel dox ci kenn du fatu kenn maam yërënte yi wa inde tatayir suxuf ak buñ ko peesee pare nag ba complété joxe jamono ji nga nga rot xamu ba xam day sa foofu du fi fadl kenn fa inda sirat ida wudia bayna dahray jahannama xata yajuz ñetteel barab bi kenn kenn fàtlu loo tëj tëj tëdd mooy lan bu ñu gàccee siraat ca kaw jahannam demee armi war ña war dem sawar rot ña war dem aljanna ji ko yàlla yàlla boole ci eh, siraat eh, foofu yi nga xam ne bu gàcce nañ ko demee armi war koo jéggi ci xadis boobu xam ne alimam Daawud alimam Abi Daawud nettal na ko dalika alimam alxaakim ñetti kon bërëb yooyu fa amma man bu dee képp koo xam ne uutiya jox nañ ko kitaabahu ak téeréem bi yemini yi mu jële ko ci loxob ndey jooram kooka bu boobaa dana kontaan am mu dal ba nga xam ne da koy jaral muy mel ni luy jibile di sotti doomi aadama yi ngir ñu jàngal ko te ñu ñëw liir téeréem bi xool wax naan ha um kaay ndax laay ji salaf saalix na ñoo xam ne bi ñu doon jàng dañuy jooy jooy yu métti métti surtout laay leen iqra'u ngeen jàng kitaab sama téere waaw kaay leen ngeen ñëw jàng sama téere ha um leen ngeen xool sama téere te ñëw jàng ko dégg واي لما جيتك بجيت قال لي اني ظننت اني ملاق حسابي ما ام واجي ما ام كي كي خامني مو جيل تيريم تي لو خامني جورام ماي واخ لي مو نان اني من داي ماي واخ ماي واخ نيغا خامني خينا خامو غن فين جيم ظننت امون يقين بما نيك سي ادنا ني اني نك من حسابي يخ حساب maanaam yowmal xiyam bis pénc maanaam ba tey ki jël téere bi may wax lii suñ borom day wax ne képp ku jël sa téere ndeyjoor rek bokk na ci la ngay wax mooy lii inni naka man day man zanantu amoon naa yaqin fii zanantu doo ko fi firee njort xam nga zan li fi firee mooy njort waaye zan bu ñëwee ci alquran zan ci alquran day ñëw léegi-léegi njort léegi-léegi mu ñëw ci yaqin daa bokk ci bërëb yi nga xam ne zann bu fa ñëw baatum njort bu fa ñëwee yaqin dafay firi mooy barab bii ñetti barab yi suutu qiyaama waaw kalla ida balagati taraqi wa qila man raaq wa dhanna annahu alfiraq wa dhanna foofu doo ko firee muy njort déet mu am yaqin lay firi yaqin nga am loo xam ne leer na la nañ njortu ko léegi wóor na la nañ yaqin am nga ci yaqin bokk ci barab yi ba tey suutu baqara waaw أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون كتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم مؤمنين خلنا أمن يقين كن القرآن ضم بنيوة القرآن أمن تبر بيو خلنا يقين لبي جيري في رنجر وأمن تبر بيو خلنا بنيوة رنجر لفري لمن سوط نجي إن الظن لا يغني من الحق شيئا فهم يرق لفري آه، ولا سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا آه، يا أيها الذين آمنوا يجتنبوا كثيرا من الظن نعم إن بعد الظن إثم نعم وينك فيهم بفيرين جرف في يقين لفيرين بس بفكر بفكر إن دعوة من جرف النا قرر بفكر دعوة من جرف النا مم مم لول مون تنك ما بو فك دا بو فكيني جيم نيكي سي ادنا گيمو تون ني مام دا ندي جيمال خيام گيمو تون بيس فينتي دو كون جوتون كيب كوكو نيت من اجليت ku ko nekk ak doo ko jot képp kon lu mu tax maanaam bu du wér moo tax waroon xëy daal ne zanna fi yaqin lay firi waaje danaan inni man zanantu amoon na yaqin ba ma nekk ci adduna ci ne bis bi bi am la lan lan laa amoon yaqin ne anni naka man mulaqin aji dajale lay xisaab yi sama xisaab mooy bis tënk sama xisaab bëgg ta wax ne ba amoon naa yaqin ci ne yomal xiyaam danaa xam fi ma jëm déedéet waaye li bëgg wax mooy danaa amoon naa yaqin gëmoon naa ne bis bi bi am la gëmoon naa ni it mbugalum suñu borom tabaraka suñ képp ku topp bis bi bis bi bu ñëwee di nga torox gëmoon naa ne képp ku topp bis bi bu ñëwee di nga am la neex gëmoon naa daal bis bi ci da am na moo taxoon ma doon def sama jaamu yàlla yu métti yooyu maanaam day mel daal day wax ak gaañ day wax ak yéefar ñi nga xam ne gëmuñu moom yàlla ci àdduna wala jullit ñi nga xam ne dañ naan mooy borom bi tabaraka wa taala mu leen daan soññu lànk mu naan leen man day lii laa xamoon waaw li xamoon naa lii bo gisee ma daan jaama yàlla daan sonn lu ne ma daan daw dugg lii laa xamoon xamoon naa ne bis bi dana ñëw dama amoon yaqiin gëmoon bis bi dana ñëw moo tax tey jii moo tax inni man yàlla ñu yàlla boole yàlla ñu yàlla boole ci ñuy wax loolu yi inni zanat anni mu rax jumla bii day jar na di jàng jamono ji nekk ndax te laamañ tàmm ba bu yom alxiyaame nga mën koo wax inni zanat anni mulaqin xisaabi amoon naa yaqiin ne bu yom alxiyaame dinaa daje sama xisaab inni naka man zanantu amoon naa yaqiin ni anni naka man mulaqin ajal ajal xisaabi sama xisaab léegi nag sun loolu mooy ay waxam kon haa umu qra'u kitaabiya inni waaw bis bi dama gëmoon dina am moo taxoon ma sonnoon waaw léegi nag sun borom tabaaraka wa taala tàmbali nag léegi nag ginnaaw jox nañ ko ab téeréem ginnaaw it jàkkaarloo doomi aadama ba wax leen ak ak mbégteem eh, léegi kooku li ak fayam suñ suñ borom nee na ku mel noonu nag képp ku mel noonu nawi mujj mooy fa huwa moom fii iishatin radiya fa huwa kooku fii iishatin day mujj nekk ci ak dundu radiyatin gu neex dund gu ñu gërëm dund gu bakkane dund gu ñu gërëm la fi fa huwa nekk ci dund gu gërëm dund gu neex fa huwa fa huwa moom fii iishatin day nekk ci ak dund maanaam dana mujj day mujj nekk ci ak dund radiyatin mooy dund aljana ga rek de دنوغ ما راضية في اسم فاعل بمعنى مفعول بمعنى مرضية دين كو كيغا خامني مو جيل تيريم تي لاجورم بيوم الخيامي كوكو موي كيغا خامني مو نار دون دنوغ نيخ في جنة عالية في الجنة يكوي صخ نردو بو في في جنة نيك في الجنة عالية يكوي واو ليغا ني الجنة يكوي نك موي داي كوي سي ديستانس كوي سي درجه mooy aljanna mi ngi moo mi ngi nekk ca kaw asamaan aljanna ma nga nekk ca kaw ca kaw moo tiim juróom-ñaareelu asamaan bi aljanna dafa kawe lool ndax ginnaaw asamaan yi juróom-ñaar la alladi xalaqa sab'i samawatin tibaaqa te diggante asamaan su nekk ak ba ca tege doxub juróom tibi ak doxub seen diggante te ginnaaw ginnaaw asamaan am na ndox moo xam ne moo tiim ginnaaw asamaan yi ndax mom yi arat moy ci rom arat moom yi nag aljannay firdaws mooy ab khaddam allahu akbar ya lañ ci yàlla bolé al aljannay firdaus moy ab khaddam al aljannay firdaus moy ab khaddam kon aljanna kawe na ci walu distance waye timit ci daraja al aljanna kawe ci daraja kon fa huwa mom fa huwa fi iisatin raadiya ci dund gu neex fi jannatin aaliya ci al aljanna yi kawe yàlla ci yàlla boore suñu borom di di melal na dundug aljanna ga nam mel da ci lal tuuti rek waaye ku saar wi nga xam ne suñu borom faram-fàccee na fa aljiza dëgg-dëgg mooy suuratul waaqia iza waqaatil waaqia dinañ ci dinañ bu koor gi jeexee fi jannatin aaliya aljanna ji kawe goo xam ne qutuufuha meññetam ma meññet ma fa ne la may meññet mooy firwi yaag lépp lu fay saxee sañ koy lekk firwi yaag la ci aju wàllu pomme yaag li doomi aadama bak maam firwi yi nekk ci firwi yi nekk aljanna nga xam ne ay meñet la yooyu yëpp xutuufuha meññan ma daniya aji jege la dafa jege dafa jege manam manam dafa jege-jege go xam ne du meññan moo xam da ngay sonu ci addu nga xam da ngay sonu di faq bo boo garab ak fam nga di faq wala lo xam ko bëgg lek nga sonn do ci jot garab ak mango nga sonn déedéet waaye meññ ma dalay lay jege day jege képp ku nek aljanna bo ko boo taxawee boo ko soxlaa jot ko lu borom xeexee nee na lii leen ci jël mooy bu meññal la moo xam ne dafa jege képp ku nekk aljanna boo ko teg adduna nga xam ne boo soxlaa meññatum sàngara xëy dem ca garab ga wala su ma àggee boo boo waaye da lay jege boo ko soxlaa rek meññit moo soxla rek da moom mu teg sa loxo ndax da lay jege foofu da lay wër du la yàq kon xutuufuha meññatam madaniya aji jege la suñu borom nee na koo kii ki nga xamne lamuy mujj lañ koy fayé moy dund gu neex dund gu ñu gërëm aljanna ju kawe waye nak fi jannatu aaliya ajana jo xamne ne xutuufuha ma dañ ya aji jege sun borom nee ko kooku dina ko téral ci aljanna maam ñu mel kep ku mel noonu dinañ ko téral ci aljanna teral goo xam ne lépp luy ñam mu neex ci aljanna boo xam ne xel du mi mosu musko daj yalla neena bir aljanna amna ci lo xamne bët doomu aadama mosoo gis fii ci àdduna ndax daa amul ci àdduna waaye xel doomu aadama mu bakkan doomu aadama mos a bëgg bëgg lu mel noonu ndax da koo xamut dégg nga waaw loolu nag moo waral suñu borom daan ne kulu washrabu hani'an bima asbil ayyam suñu borom day digal malaaka yi malaaka yi wax ak waa aljanna leen di wax ak waa aljanna ak ñi nga xam ne ñooy suñu borom daan leen kulu lekk leen waaw lii ak ndigal la maam du ndigal goo xam ne force la waaye ndigal la goo xam ne lii ibaaxa maam dama la koo digal ngeen lépp daganal lii fi li ngeen gis aljanna lépp pour lekk leen washrabu ta naan leen lépp lu fi nekk loo xam lu ñuy lekk la daganal naa leen ko lekk leen nu mu leen neex lépp lu fi nekk loo xam lu ñuy naan la yéene ko moom xulu washrabu lekk leen naan leen hani an lekk gu dal ta teey lekk gu neex ta dal ta teey ah nag lii ngeen am nii maanaam day mel ni waaja day mel ni eh, ñi waat aljanna jël nañ seen i téere ci seen ndeyjoor ba dugg aljanna maanaam nañuy mujjee ginnaaw bi ñu seen ndeyjoor ba dugg aljanna loolu suñu borom di melal fii ndax loolu waxin alquran su ma nee ne boobaa nag bu ñu duggee aljanna lii lañ leen wax dañ naa leen kulu washrabu hani an malaaka ñoo leen tiim di leen ñaanal waaw di leen jottali lekk leen naan leen hani an lekk ku teey enak nengen na ngeen xamne ne ngeen am ni lu ko waral bima aslaftum ci sababu la ngeen jitalon la ngeen jëfoon ci sababu manam li ngeen am ni du tagi génne da ngeen ko am rek da ngeen doon nelaw rek mel naan kharim jay wala ngeen def wala ngeen tok rek di mebe rek nan nga bëgg na def aji tam beer li ngeen am nisun sun borom ci lay yi day leeral ci ni li ngeen am nii nga xam lepp luy ak lek ak nan mom sun borom degal na len ko na ngeen xam nit li ko waral mooy lan mooy bi ma aslaftum ci sababu la ngeen jëfoon fil ayyaamil xaaliya ca bis ya way mooy bisi àdduna ya fekk seen borom bi suñ borom di wax na fekk na julli euh, maam ñi war na pare nga xam ne àdduna weesu na su boobu di leen fàttali ngeen am ne jëf yi ngeen sonn ba julli yu métti ya naafila ya woor ya tuub ga jaamu yàlla ya sarax ya loolu lien loolu képp ko waral bi ma aslaftum ak yërmande yàlla te teg maam du jëf ja dong naa ko leeral kon kon kulu lekk leen mooy ñoo ñi nga xam ne ñoo ñoo ñoo nangoo seen a piir seen ndeyjoor ginnaaw bu ñu duggee aljana lii la seen borom wax kulu washrabu hani'an lépp luy ak lekk wala ak fii ci aljana mi ngi ne gàññ lekk leen nu leen neex waaye nag na ngeen xam ne lii ngeen am ni bi ma aslaftum ci sababu la ngeen jëfoon fi l ayaami alxaaliya ca bis ya wëy bis mooy yéen bis mooy bisi adduna ya dégg boo fekkee ne adduna moom jeex dundu adduna moom jeex na ba ñekk dundu àlaxira suñu borom dañuy fàttali ne ba ngeen nekk ci adduna laa leen diggoon ngeen sant ko ci laa leen santoon ngeen di ko def ci jaamu yàlla yaag sonn yaag naafila yaag tuub yaag jàng alquran yaag qiyaamul layli yaag joxe asaka yaag aji màkka gaag jàngale xam-xam yaag njàngum xam-xam ba te ngir jëm yàlla rek tax ak jaamu yàlla xam nga jaamu yàlla da bari ay façon yooyu moom ma ko waral bi maa maa woor yaag yëpp waaye nag ci sartu mu nekkoon lu yàlla nangu dégg bu ko yàlla nangu moom yàlla du wax ne ba asraftum ndax nangu yàlla yàlla nangu bi maa asraftum ca la ngeen fi fil ayyaamil xaaliya ca bis ya nga xam ne mooy ca bis ya wëy bu la neexee nga firi ko ba fa ba nga ne fil ayyaami ca bis ya alxaaliya ya di way way ya di way jàll bis ya jàll dégg li mu wax alxuraan waa aljanna buñ tuddee yàlla naa leen lekk leen waaye li ngeen am nii jëf seen li ngeen si àdduna moo maanaam wax yu ni mel ne li ko suñu borom wax si alxuraan daa bëri lool maanaam lii mal defal la ko waral nag mooy la nga defoon boo demee ci fenn am na foo xam suñu borom day wax ne wa nuudu an tilkumul janna uuristumuha bimaa kuntum ta'maluun ci sourate Zukhruf mu ne wa tilkumul jannatu allati uuristumuha bimaa kuntum ta'maluun am na feneen mu ne wa amma alladina amanu wa amilu salihaati fa lahum jannatul mawa nuzulan bima kaanu ya'maluun waaye nag laaj yi li laaj maanaam boo taxawee day mel ni kon doomi aadama ay jaam yàlla donc ma dugg àjjana loolu dëgg la waaye nag du jaam jaam yàlla moo ko du jaam yàlla donc ñaari mbir moo ma dugg àjjana mooy jaamu yàlla ya ak yërmande suñu borom bu doon jaam yàlla képp suñu borom fas la topp li ngay jaam yàlla dong la lay fay yërmande bokk doomi aadama du kenn du dem àjjana moo tax yonent bi salaam ci xadis boo xam ne alimam Buxaari nasal ko yéen asan nee la yudxila ahadan amaluhu aljanna amul kenn kenn koo xam ne eh, jaam ay jëfa mën na ko dugg àjjana saxaaba yi ne ko wala anta ya rasulallah ba ya, ci yow sax yonent bi asan wala ana ba ci man illa an yataxammadina allah bi fadlihi wa rahmatihi ba ci man mii sax man yonent bi sax sama jaam yàlla bu ma dugg àjjana lii ma dugg àjjana xanaa kay suñu borom nangu sama jaam yàlla par boole ko yërëm ma yërëm ma day suñu borom tabaraka taala kon la yi li fi borom wax mooy li ngeen am ni li du li ngeen am ni la ko war moy seen jaamu yalla ya waaye bu ci déggee mukki na jaamu yalla kep go xamne ne na yalla andu ca dërëm dir xaw la ngay jaamu yalla su borom yërëm la nga jaamu ko kéemee su borom do yërëm la ci junni do nga maa dem aljanna waye bu doon jaamu yalla bu doon jaamu yalla rek su borom bu lu ci topé ben bu ci nek da nek ben bakkar ñu ko moy rek man nga ne boo tutul mën naa daa def jaamu yàlla yëpp boo tut léegi kon aay ji day tekki ne kon waaye aljanna jooju nga xam ne aljanna ju aljanna ju bànneex la yonent bi alayhi salaam ci xadis bi nga xam ne alimam ahmad nettal na ko yonent bi alayhi salaam nee na maanaam zaydun arqam nee na benn waay dafa benn waay daa jigoon benn waay dafa benn yahud dafa ñëw ci yonent bi alayhi salaam ne ko yaa abal qasim yow da yow day yow tasumu anna ahla jannati ya'kulu yashrabun ab yahud daa ñëw ci xam ne yow yow yow muhammad yow yaa wax ne waa àjjana waa sawar dañuy lekk dañuy naan yéen a ko waaw maa ko wax kay yéen a ko naam والذي نفس محمد بيده إن أحدهم ليعتى قوة مئة رجل في الأكل والشرب والجماع ما ko wax kay ndax giñ naa ci yàlla ne benn waay rek sun borom dana ko jox kattanu waaleykum salaam ci fi nga defaaye yéen àttan na ko benn waay rek sun borom dana ko jox kattanu bu kerogee kattanuk téeméeri waay ci wàllu lekk ci wàllu naan wala ci wàllu jaxaso waaw mu nekk kër goo xam ne doomi aadama bu ñu fa duggee duñ ma sa màgget ci wax mbaa ne la ñu yem yi def ne fi ljannati maa laa aynun ra'at wala udnun sami'at wala xatar ala qalbi bashar ci xadis yoo xam ne xadis muslim yéen bi nee na aljanna am na loo xam ne bët mosu koo gis nopp mosu koo dégg mosu mosu toog sa si xolom doomi aadama far waaw Euh, lenn daal mooy li nga xam ne waa aljanna ba ñu liggéey danañ am lu leen moom am na leen metti la leen mooy lan mooy bu ñu xalaatee ne ci àdduna am na waxtu woo xam ne jàlloon na seen dund te mo ci jàlloon na ci seen dund ñu sànq ko ci ak ne te defuñ ci ak yi di asaab nee waa aljanna duñu am lenn lu leen metti lenn daal mooy li nga xam ne da leen metti moom ci aljanna mooy seen xel bu ne yar ci waxtu yi nga xam ne dañ ko passé woon ci ak neen waxtu yi xam ne ba baasuñu ci ak yàlla bu leen rek dañuy day am le ndax dañoo gis ne buñ xamoon ne nii la duñ ko fàtte ak neen waaye bu dul loolu moom duñ duñ fa am le met ba abadan ba ba ngay rexee ba nga daan di bu ah, sawara bu après rek suñu borom asamaan suuf xeex eh, nekk ci gën bu bu bu yomal xiyam jeexee asamaan suuf dañuy xeex asamaan suuf bu ñu xeexee ba asamaan mënee rek ba waa ñun dañuy def ci kaw. maanaam maanaam da maanaam dañuy des aljanna ba tey maanaam duñ mës a génn aljanna ñi def sawar adduna du amaat waaye nag euh, bu ma ne moom dañuy ña nekkoon aljanna moom day am digg boo xam ne dañuy wàccaat ñëwaat adduna ngi dunda dunda adduna ñu fas yéene dunda adduna <laughs> dana waaye déedéet waaye suñu borom nee na déedéet demeewul noonu rek xaal dina fee abadan ba faaw nag moom adduna génn adduna jeex euh, kon suñu borom taala laa yooyu yi nga xam ne suñ borom la yoy la ci melal li tambale ci buñu joxe bulletin bi ak na ngay mujje carte gi nga xam ne ko joxe day tekki ne aljanna nga dem ak boo duggee aljanna tek nga fii aichatin radiya fi jannatin aaliya qutuufuha daaniya لا تسمع في خطوفها دانية كلوا وشربوا هنيئا بما أصلتم في الأيام الخالية léegi suñu borom ginnaaw bi nga xam ne par na ci gaa ñi nga xam ne nag ñooy ñi nga xam ne bu ëllëgee dañuy nangu seen bu seen dañ koy jëlee seen loxoom day joor Euh, mi ngi wëlbatiku nag foofu lay daanelee mawdu boobu ñëw ci ñi nga xam ne nag moom bu ëllëgee seen seen ab téere ci seen loxo càmmoñ lañ koy nangoo yàlla nañ yàlla musal ci kuréel boobu yàlla ñu suñ borom tax taala musal ci catégorie boobu yi ñoo ñi nga xam ne seen téere ci seen loxo ndeyjoor lañ koy nangu yàlla nañ ci yàlla musal euh, comme ci uslubu alquran nga xam ne uslubu tarix ba tarix maanaam su borom day bégale sàgg teg ci ak xuppe wala mu xuppe ba bare teg ci ak bégale su borom mi ngi ñëw ci leeral ñoo ñi wa amma man utiya kitaabahu bi shimalih fa yaqulu ya laytani lam uta kitaabiya léegi nag su borom taala mi ngi nettali ñi nga xam ne nag moom buñ leen joxee seen téere ci seen ab loxom day yor rang fas keneen nangoo nag ñoom nag lam mooy seen mbir comme ni ko leeral sànq képp nangoo sab loxom day jor mandargal bi tekk na ci aljanna nga aljanna nga jëm waaye nangoo sa loxo càmmoñ màndargal bi tekk na sawar nga jëf yàlla ñu ci yàlla musal léegi nag suñu borom na wa amma man waaye nag bu dee képp koo xam ne waaw gi day nekk matuuf wa amma man bu dee képp koo xam ne uutiye jox nañ ko kitaabahu ab téeram bi shimaali ca loxob ndey jooram ba nga xam ne bi nga koy jox ne ko am mu mu dem nangoo ko sa loxob jooram ba waaw nga xam ne Euh, ci loxoom ndeyjooram la ci loxoom ndeyjooram boobu la maanaam euh, la la koy la koy la koy nangoo ci loxoom ndeyjooram bii la koy nangoo maanaam xam na ni loxoom ndeyjoor bi mu ko bi mu ko nangoo bi euh, moom texe texe dina sawar la jëm ñaareel ba it gàcca maanaam bu ko bu ko nag gàcca gi maanaam rus maanaam benn da koy bu ko nangoo ci loxoom ndeyjooram dana xam ne sawar la jëm waaye da koy ib bara jàng lépp lu mu defoon ci jëf yi bon da koy fekk mu ne gàññi waaw lépp lu defoon ci ay jëf yi bon da koy gis bu dee yéefar ba ke weddi yàlla yi defoon yëpp ak boole jëf yi bon yi yëpp da koy gis waaw bu dee jullit bi bàkkaar yi defoon yëpp da koy gis mu ne jàkk gàcce googu noonu ak tiitaan xam ne muccut xam ne xamna rutna rut lay ritu ritu gu métti nak riitu nak moy li sun bobu neena koko nak lamay def moy fa yaqulu day wax nan ya laytani akane xon man ya laytani akane xon man lam uta ñi bañ ma jox kitaabiya sama tere tere bii ñu ma jox ne moy sama tere akane xon neexoon ñi bañ mako jox bo rek koog joy met ak ay yuxu الله أكبر ndax lan gàcce gi gàcce gàcce gu rëy gi mi am gàcce gu yi gi mooy gan premier gàcce gi mooy gi nga xam ne moom xam na ko ñëpp xam ko mooy nit ñëpp ne jàlloo ak ñaw nga nangoo sa loxoom day joor ñëpp xam ne sa war nga jóg yàlla boo nekkoon ku tedd ci kanamu nit ñi nag ci àdduna eh, ndax gàcce lan gàcce gàcce gu njëkk gi mooy lan dama am na ñaan ko jàkk xam ne loxoom day joor la loolu gàcce suñ bi allahu akbar manam gàcce bu nek waaye salaam gàcce gu nekk jarna jarna jarna na jar naa ñaan jar naa muslim nit gàcce gi man xiyam ndax gàcce la goo aduna bepp lepp bépp lépp yu doomi aadama rek danaan fañ seen kanam mo tax ñu deel ibrahim ci ñaan gi ba muy ñaan bokk ci lam ñaan yalla moy gàcc gàcce gi man xiyam allahu akbar bokk ci lam ñaan moy gàcce wala tukhzini yawma yub'athun yawma la yanfa'u la yawma la yanfau malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim yalla ya bu ma gàcce mukk waaw gàncax adduna woyof na loolu léeg-léeg nga gis ci adduna waaw ba ci biir ñàkk sax naan yow lii wursu say nawle mu am gàcc waaye xamuñ ne dëgg mooy gàcc yomal xiyam nag moom gàcc dëgg mooy suñu borom ñëpp la xool yàlla boo nekkoon ku yaakaar da baax ñëpp di la xool ñu jox la sa téere nga lo nga nga nangoo ko loxoom ndeyjoor ci kanamu doomu aadama yëpp ñu lay gis xam ne sa dem allahu akbar beneen bi mooy bi nga xam ne yow yaa ko xam mooy yow ginnaaw bi nga xam ne nangu nga sa loxo bi nga xamee ne nangu nga sa loxo joor yow boo koy jàngee dañ ko gis xeetu jëf yi ji jëgëran yëpp ndax laa ndax laa laa taxfaa minkum xaafiya la yàlla wax ca laay njëkk jëf waaw nga jëfoon daan fa xeetu bon bon jëf yi bon yëpp ne jañ ca bi loolu nag mooy waral la la nga cay teg mooy lii yaa layta nii yuuxu ak rëccu Samba di rëccu ak di yuxu nga xam mo xam muy yéefar wala jub wala mooy kat yàlla bi yaa layta nii ak a man lam uuta ñi bañ ma jox kitab ya sama téré ak a téré bi ñi ma jox ñi bañ ma ko jox fi de mébét xam nga jangon nañ layta mbok yi ca nahwu fan doy layta moy lan hafu tamanni de mébét ak a waxoon naa it ñaare layte lu ci bëree bëri buy mébét donte du fépp nag waaye buy mébét day mébét lu mu ta ne te demee ni yaa layta ni kuntu turaba ala layta shababa yaudu yawman ala layta sha'ri hal abitayna laylatan bi waadin wa xawli izxarun wa zafilu ñu ko bilal sidna bilal wax yoon waaw layta ak a neexoon fii day mébét lu mu ta ne moo tax borom xam-xam daa ne layta li ci bëree bëri day ñëw di mébét lu mu ta ne mooy lii xam nga ne ñàkk laa jox téere sa téere moo tax ndax faaw ñu jox la ndax ndax adduna bind binduñ la fa woon ci ak ñeen dañ la bindoon ngir objectif bu la tax a mooy jaamu yàlla ji ak jëf te faaw kon faaw ñu jox sa téere kon moo tax day mébét lu mënta ne ak neexoon ñu sama téere récupéré fiñ bi yàlla na suñu borom muccal ñu ci ci réccu gu métti gii walam adri ma xisaabiya ba tey ba tey kooku may wax mooy képp ko nangu sa loxo tam réccu ga jugaat joy ga walam adri aka neexoon ya, nit ma baña xam ma hisab ya lam mooy sama hisab safar aka neexoon ya, nit ma baña xam lam moy sama hisab aka neexoon sama hisab ma bañ cee xam dara ndax gis na nit amuluma ben njariñ bal alkandi la daa mujj soppandiku nek sama alkandi sama kaw way nekkul sama njariñ ya laytaha aka neexoon ya, de gama de won ya laytaha Ya letaha hagi gi damir ji day delu ci ak de moy de gim dee won, ba mu nekk adduna dee nga xam mom la njëkk de dugg ci gim de won, du dugg ci dundu bersak ginna bi dundu bersak jeex ma ñëw bis penc ci de gi noonu yi nga xam ci la ne woon fi ni mom lay ñaan letaha ak neexon de ga Kan de googa da di nek euh, kanat mu daal di nekk alqaadiya lay jeexal mbir ma alqaadiya moy la nga xam al qati'a lil haya moy lay jeexal mbir ma maanaam fii li mu mébét mooy lan ak a neexoon ma maanaam ñi bañ maa jox sama téere ak a neexoon bañ a xam sax la mooy sama xisaab waaye yaa laytaha kaanat al ak a neexoon dee ga ma dee woon faatu ga ma faatu nekkoon ba ci bàmmeel ga ma nekkoon bañ faa génn ak a neexoon faatu ga ma faatu faatu ga ma faato woon dee ga daal di jeexal mbir mi maanaam li mu mébét mooy fim mu nekkoon ci bàmmeel ak dee gi mu dee woon dee goo ko jeexal mbir mi bañ koo dekki lii ko jëm ndax yéefar bi wala jullit bi nga xam ne day mooy ay yàlla mi ngi woon ci àdduna bi mu nekkee ci adduna bi bi mu faatoo bañ denc ko ci bàmmeel kooku ngi ci barsaq bi mu nekkee ci barsaq xeetu mbugal yi mu fekk mu met met lool mu defee ne fii la ak fet ak mu ak métti yam mu daal di dekk gis lu gën a tar gis lu gën a titli léegi nag mu mébét di ñaan ak a neexoon yëfi yam foofa nga xam ne ca deegoo ko la yam mu jeex takk xam nga xam ne xiyam ay étape la lu ñew rek la war gëna la war manam bis bu ñew bis ba ca tege mbugal ba muy indi mo gëna tax tar ba abadan nak moo tax bi nga nek rek sa mbugal mbes sa bu ñew da ngay ñaan aka a neexoon ma def ma def ci bu njëkk ba sa and ak bu njëkk bu tar la ku na xam ne mbugalum mbar sax mbugal mu metti métti la moy mbugalum bàmmee la ci aji waaye fi demé bit aka a neexoon déggoo ko jeexal mbir ya ñu baña dékk aka ak neexoon ñu yam ci dégg rek yam ci bàmmee yam ci bar sax ga baña dékk يا ليتها اكني خون بيغا كانت دادي نيك القاضيه لي جيخال ميرما اجي اتا جي جيخال ميرما ييب اي ريكلا بوكنا جي لامي ريكلا تاي ما اغنى عني ماليا بو فكن ا ما ما اغنى عني ماليا ما اغنى عني جيري ما در ماليه سما علالجي سما علالجي بو فكي بي موم بو فكي امون الله koo xam ne dafa amoon alal lool te doon ci jaam borom tabaraka taala da ca war kon xam na ne alal boobu da jaam jaam ci yàlla war joxe ci asaka wala asaka te wala dimbal ci ñoo xam ne dimbal daa war wala gis ñoo xam ne dañoo lor te nga yor ko mën ko dindi waaw képp koo xam ne daanoo ko def yowmal xiyaam bokk ci la ngay ricoo bari suñu borom jégalut ginnaaw boo yële si téye ndax maa axna anni maaliya maa axna anni jëriñu ma dara maaliya sama alal ji am ñu ne maaliya daa nekk maali yaani nekkul maali ji fi di alal waaye nag li li gën a wér mooy maa de maa gi firi alal bismillah maa axna anni maaliya sama alal jëriñu ma dara léegi maa gi nag maa gi ñaar bu neexee ñaar dagan na ci boo ko yoon bu neexee maa gi day nekk maa al istifhaamiya muy maa biy làcce booba maana bi day nekk maa axna anni maaliya sama alal ji ana lan la ma jëriñ ah ab laaj lay doon laaj ana lu ma jëriñ bu neexee maa gi nekk alxabariya nag maanaam waaw ban moo ci wér nag mooy gannaaw day réccu ban moo ci gën a wér ñoom ñaar ban moo ci gën a wér ñaar yëpp nag wér na boo ko ci lënk rek mu mooy ma axna ani maaliya ana lu ma jëriñ nga xam ne ab laaj lay doon wala nga ne maa axna ani maaliya jëriñu ma dara waaw kon maa axna ani jëriñu ma dara maaliya sama alal ja la ma amoon ci adduna sama nguur ga sama daraja ga alal na fii du xaalis dong di dénk nga bàyyi nga bàyyi xel mana fi liñ jublu ci alal jublu ci xaalis donc waye lepp lo xam dama ko moom ba loolu doxoon digganteem ak jaamu yalla lol la yalla wax ni lol la waji di wax ma liwu dama naa xam mara wara waroon na day wax ne li yalla jullu maa lii fi moy lan moy sama daraja daraja ja xarit ya forso ba doole jax ha ah? njit la njit ga kilifteef ga yep mu ci bir deng ma akhna anni maliya loolu ci ci buntu moomeel waaw la ma amoon jëriñu ma dara sama alal jëriñu ma dara dara dara lépp ci lay jóge su booba rek su borom mooy nett ba tey li muy wax halaka anni sultaaniya ma agna anni maaliya la ma amoon jëriñu ma dara dara eh, moo tax yéen tamit moo tax laaj ji la mooy leen loo am ci adduna ba mu teelaat dox sa diggante wut ngërëmal borom bi tabaaraka taala muy ak nguur bu pouvoir muy askan wu tedd boo xam ne caa bokk bu yomal xiyaame bu la ci yàlla jéego bu yomal xiyaame nii ngay mujj ma ax na an ni maaliya ana lan la ma jëriñ jëriñu ma dara waaw nag ki ki gën yàlla gën a mere mooy wax na ne bu dekkee ci àddina yàlla dénk ko nguur day tuddee bopp malikul amlaak maanaam buur buur ñi bu yom xiyaame def ne ma ax na an ni maaliya takkaran halaka anni sultaniya manam, ñi nga xamne ñoy jëlé ñoy nango ndey jor ñoy wax wax yëpp ñokay wax manam ñoy ricc riccu gu metti gi la suñu borom di netali li nak amugul waye dina am waye bu amé ni lay amé suñu borom di netali halaka anni sultaniya halaka anni rir nama halaka alquran anni walisma boko bolé moy rir nama sultaniya sama sama nguur ga sama pouvoir ba sultaniya moy sama nguur ga deng waaw neex fe nekkoon ci àdduna yor ak nguur jiite ay nit ñàkk leen yërëm ak di napp napp doomi aadama yi ne ko Firawna ne doon defee waaye képp koo xam da ngaa jiite ab jeunesse da ngaa jiite ab peuple wala nga jiite ay doomi aadama teg leen coono teg leen pression bu yomal qiyaama ngir ngir rëy rëy ci seen kaw ngir ne yaa yor nguur gi bu yomal qiyaama baat bi di nga ko wax halaka anni sultaaniya sama pouvoir ba sànku na réer na ma alku na halaka alku na anni wal isma sultaaniya sama nguur ga sultani yi ba leen fekk sama pouvoir ba dégg mooy nguur dong ndax nguur nguuru njiite dong dong la bëgg wax loolu ma ngi ci biir waaye amna ci borom xax yoo xam ne lépp loo xam ne doy da ko amoon rek mi ngi ci sultan dégg nga ndax sultan da yaatu sultan day firi nguur di firi lepp lu maara am mo xam alal wala ki yim mu yo xamne xam kon halak anni sultani sama nguur ga sànko na tey ak rëccu gu metti ga dégg sun borom neena ki nga xam ne biñ koy jox ab téeréem da koo nangoo loo xam joram nii lay mujj waaw yii lay wax ba ci njëkk mooy lam uti kitaab yi ak a neexoon ne bañ maa jox sama téere wala mu adri ma xisaab yi ak a neexoon bañ xam sax la may sama xisaab yaa laytahaa kaanati l-qaadiya ak a neexoon deega ga de deewoon ak a neexoon deega daal di jeexal mbir ma maanaam ak a neexoon ñu yem ca deega ba ma deewee rek jëf yi daal di jeex te bañ a dekk ak a neexoon ñu bañ maa dekkil ma ma axna anni maaliya sama alal ji jëriñu ma dara fii ci jama amoon ci adduna yëpp jëriñu ma dara halaka anni sultaaniya sama pouvoir waa sama nguur yëpp sànku na walis ma maanaam réer na ma tey jii léegi nag bi foofu lay nekk di wax di wax di wax ba suñu borom jékki-jékki yebal ay malaaka yebal azabaniya mooy malaaka yi nga xam ne ñoo ñoo yor ceen sawara ya waaw malaaka yi nga xam ne ñoo nekk sawara am ñooy mooy azabaniya juróom-ñetti mala fii juróom-ñetti malaaka lañ am ñoom ma malaaka mboole malaaka yi nek sawar rek waaw mooy xasanatu jahannam eh, saalahum khazanatuha manam fa lañu nek nekk di rëccu xam nga rëccu gi moom am na am naat doo fa nek di rëccu fa nga nek di rëccu di wax di di rëccu ak di yuuxu ak di joy fofu nga nek li joy fofu nga nek li joy fofu la suñu borom di di digalee malaaka yi malaaka yi nga xamne sawar sa mbiru sawar rek moy seen liggey duggal fa xecc fa yoy nonu ñoy la sun borom di yebal ne khuduhu xuduuhu fa xulluuhu allahu akbar xuduuhu fa xulluuhu maanaam xu suñu borom mooy digal malaaka yi ne leen xuduuhu jël ko kooku di wax foofu nga ne kañ jël leen ko fa xulluuhu te ngeen takk ay ceen ci baat bi maanaam te ngeen jéng ko xuduuhu jël leen ko fa xulluuhu te ngeen jéng ko gën jéng la bu dee bu dee xulluuhu baat ay ceen la yoo xam ne dañ koy takk ci sa bi ceen yu dijj inna lillahi wa inna ilayhi rajiun xuduuhu jël leen ko jàpp leen ko fa xullu mi ngi mel ab commissaire rek ñu yóbbu la police nga nekk fa di yooyee gi saraxu commissaire bi jékki ngeen dugg ko ci prison bi wala jël leen fi ngeen yóbbu mi ngi mel loolu rek maanaam fa ngay nekk di saraxu naan yaa lay taxaa kante xaar su borom jékki-jékki ne xuduuhu gis nga ndigal la yàlla ñan la digal mooy malaaka yi nga xam ne ñoo gàddu sawara jël leen ko fa xullu te ngeen jéng ko ci baat waroon ko xam ne nee nañu ña suñu borom di digal ñoom junni malaaka lay doon am ñu ne juróom-ñaar fukki yoo xam ne ba leen suñu borom waxee rek dañuy ñëw jël jéng ba ceen ya jël sa loxo bi jël loxo ba takk ko bool takk ko ci doq gi loolu mooy jéng bu doq loolu mooy fa xullu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ak jéng réeg léegi loolu loolu mooy lool mooy jéngu loolu mooy jéngu doq gi loolu mooy jéngu ba maam baat bi ci baat bi xuduuhu jël leen ko fa xulluuhu te ngeen sànni ko maanaam xuduuhu jël leen ko fa xulluuhu te ngeen jéng ko ci baat maanaam ceen ya juróom ñaar fukki malaaka am ñu ne mooy juróom ñetti malaaka saban doon nag yooyu ak wuute la waaye lu ci mel ni daal saw malaaka yi sawar la ثم الجحيم xam nga sun borom daa fii laay jiir ñëw daa dégg daa akbar muy jéng yoo xam ne sun borom képp xam nu mel waaw euh, xuduuhu di kooku di yuuxoo ko def yëf ak ñu déjati ko nee leen ko fii fii du fii du waxtu riccukaay waaw ñi war dem sawara seen réccu gi day bari lool bo ci sotul mulk lan lañ waxon euh bala qad jaana nadhir fa kadabna wa qulna ma nazal allah min shay in antum illa fi dalalin kabir wa qalu law kunna nasmau aw naqil ma kunna fi ashabi sair fi fi lu ñu waxati moom waaye booba sax day fek ñu dem sawar bu dem ñu ndax booba day fek ñu nekk biir sawar di wax am day fek ñu nekk biir sawar ñu leen lak ñu yu waye bi nak mom duggu ñu sawar mom maam ci pénc rek la leen joxe ci seen seen ki sun borom daane xuduhu jël leen ko fa xulluuhu ta ngeen ko ta ngeen jeng ko ci baat fa xulluuhu moy jël jeng yi tak loxo bi maam jël ñaari loxo yi ko ko bi ba par nak neena na su summa al jaxiima wala euh, summa salluhu après na ngeen ko jaarale na ngeen na ngeen ko lak al jahima ci sawar jahim am sun borom mo joxe ordre kooku taxaw di ruusi naan la yaa laytani uh, yaa laytahaa kaanat al qaadiya jël leen ko ngeen takk ko bu nga paree nak ngeen jël ko sànni ko sawar di ko fa jaar jaar gi nag mooy da ngay wëlbati ni ngay wëlbati aw jën li ko lakk léegi-léegi kanam gi jàkkaaroo sawar léegi ginnaaw gi jàkkaaroo sawar di ko wëlbati subhanallahi alazim kon summa al jahima summa salluhu après ni ngeen summa al jahim bal neex nga firee top pesawara, top pesawara jahin yiñ dengan kolak ngeen dengan semua bul top dengan kolak, top yang mau gina ko gitu. apa yang dengan kolak mooy kau tak kepar dengan kolak pare al jahim pesawara jahin kon di sini ini ndigal lu njëkk li mooy nañ ko sana pesawara baat sànni ko sawara summa fi silsilatin zarcuha zarcuha sabcuuna diraacan fasluku inna lillahi wa bi mana mau mooy bi yéeme moo tax ma suñu bopp da ci ne summa fii silsilatin maanaam summa fii silsilatin su ngeen paree nag na ngeen jël maanaam maanaam su ngeen paree na ngeen ko def maanaam na ngeen jël ak ceen ab ceen ab ceen xam nga foofu lu mooy jéng mais summa fii silsilatin topp ak ceen silsila mooy loolu ma dugal noonu yi ñaari photo yi lii mooy silsila mbokk yi maanaam ceen yi nga gis nii loolu mooy silsila waaye nag mooy bi ñu xam ci àdduna ndax bi yàlla wax yi nag moo moog bi moog yi moo moo bi ndróo nañ am nañ différence baax a baax su ma fi si bu ngeen pare na ngeen jël ak ceen goo xam ne zaruha ab tolluwaayam sabuuna diraan dayt ak uh, manam zarruha ak guddayam bok la bëgg wax maanaam tolluwaayam ak guddayam summa fi silsilatin bu ngeen paré ngeen jël ak cien manam yalla may déggal malaaka yi kooku di ricu ni ngeen jël ak cien go xam zarruha ak guddayam sab'una diraan day toll ci juroom ñaar fukki xasab juroom ñaar fukki xasab bokki la moy xasab xasab moy sa loxo bi ni lol may xassat liko dalé ca liko dalé sa tenq bi ba ci sa conco wala bu neexee liko dalé sa tenq bi liko dalé ci sa tenq bi ba ci sa mbagg yi am xobi lol lepp ay yeb li ci dugal loolu may xassat ben xassat xassat yooyu noonu boko don tolo tolloo la ba mat juróom ba mu ci juróom ñak xassat ci ci wàllu guddaay suñu borom digal malaaka ni ngeen jël ceen bu mel bu tol nonu nak bobu wa nak faslukuuhu na ngeen ko ci dugal bu la neexee bu nekk ci firi nga jël summa boole ko faslukuuh daal ne summa faslukuuh loolu ci wàllum firi la dégg summa faslukuuh ginnaaw su su ngeen pare na ngeen ko na ngeen ko dugal fii latin te boobu sax mooy bu gën dégg léegi da ngay jël summa faslukuuh summa faslukuuh topp na ngeen ko dugal fii latin ci ak ceen silsila naa la mooy ceen gii nga xam ne daanaka day benn bi ci nekk da nga jàpp sa morom rek waaw loolu mooy silsila moom la wax ak càllale mooy xilaq muntazima càllale dégg nga summa faslukuhu su topp na ngeen ko dugal fii silsilatin ci ak ceen mooy ñaari faro yooyu ma dugg loolu mooy silsila dégg boo xam ne zaruha ab guddaayam sab'una ziraan day toll ci juróom-ñaar fukki xasab ah boo ko natt ci juróom-ñaar fukki xasab ndax xasabu doomi aadama ndax suñu borom ci xasabu doomi aadama la ko natt wala geen xasab la ko natt xam nga xasab moom bu dee ci doomi aadama mooy loxo bi nii lu tàmbalee ci mbagg ba sa coon ci loolu mooy xasab waaye xasab gii suñ borom natt ceen googi ci guddaayam ndax ma xasab doomi aadama abdullah ibni abbas nee na xasab googu mooy xasab bu toll xasab malaaka donte wax jooju wérut euh, ma wérut ci ibni abbas wérut ibni abbas moo ko wax am ci borom yo ne maanaam comme xasab doomi aadama la waaye xasab ma am doomi aadama ñu ne xasab bu nekk maanaam juróom-ñaar fukki xasab la boo natt ci guddaay maanaam ceen gi ci guddaay juróom-ñaar fukki xasab lay tolloon waaye xasab bu nekk it benn xasab bu nekk day tolloog juróom-ñaar fukki jéego maanaam boo doon jéego juróom-ñaar fukki jéego benn xasab ne jéego te jéego bu nekk day soree diggante Makka ak Madina subhaanallahi azim doonte loolu nag am nañu ko wax ci waroom xam-xam am ci borom yoo ne xasab bi yàlla wax ni ndax xasabu doomi ci xasabu doomi aadama ko yàlla na tuwal lu mën di am daal allahu aalam yàlla gën a xam am ñoo xam dañ caa noppi maanaam dañu xam waaye yu mel ni am daal seen la am nañu wax ne comme ni ma wax sànq ñaareel wax bi euh, al imam Bakali yi nee na xasab googu yi maanaam juróom-ñaar sab'una ziraan juróom-ñaar fukki xasab xasab benn xasab juróom-ñaar fukki xasab yooyu benn bu ci nekk rek euh, benn xasab bu nekk day tolloog juróom-ñaar fukki nekk day sooree di gën a mat Madina loolu am na ñu ko wax ci waram xam-xam waaye ala kullin ceen la bu gudd ba pare boole ci dijj rëy rëy goo xam ne boo ci jëloon benn ñoo na ci xadis boo xam ne alimam Tirmisi ak alimam Bayhaqi muy xadis bi wér yonent bi alayhi salaam nee na kenn googu noonu maanaam silsila bopp boo jëloon benn rek benn par exemple weñ yi nga jël ci benn benn benn benn carré benn rond boo ci jëloon benn rek euh, wàcce ko ci montagne mën na ruy ci agréa yi yu rëy kon bokk euh, waaye lu ci mën dem daal li suñu borom di digal mooy lan na ngeen jël ceen gu toll noonu ceen goo xam ne ak guddaayam day toll juróom-ñaar fukki xasab ngeen dugal ci waaj yi ngeen dugal ci mooy lan ngeen laxas ko ngeen takk maam ngeen takk ko wërale ko ci waaju nga xam ne bu mujj nekk ci biir kenn bi nag ngeen di ko sawar yàlla ñu yàlla musal ci e, mbir ma nga xam ne kon bi mu taxawee di di riccu ak di def yëpp suñu borom ñetti mbir la digle ba ci njëkk mooy xulluufu fa xulluufu mooy na ngeen ko jéng na ngeen ko njëkk a jéng ndaw yi na ko jéng ci baat bi jël ceen takk ko ci baat bi boole koog loxo yi summa al jaxiima salluuh bu ngeen pare it na ko jaarale sawara jaar na ngeen ko lakk ci sawara summa summa sallu léegi nag bu ngeen pare ci loolu summa fi silsilatin summa faslukuuh topp na ngeen ko dugal fi silsilatin ci ak càllale wolof moo ko firi càllale waaye mooy ak ceen ceen goo xam ne zaruha ab guddaayam sab'una diraan juróom-ñaar fukki day toll ci juróom-ñaar fukki ko ñetti mbir yi la suñu borom dégg la malaaka yi ne kooku ci tax kooku ci taxaw di yuuxu kooku ci taxaw di yuuxu def leen ko ñetti mbir yooyu léegi nag fii dangay taxaw laaj ne waaw daa mel ni jéng gi nga xam ne moom lañ jéng ci doq gi ginnaaw bi paree su mborom daa wax ne dañ ko jéng ci doq ba pare nag doo ko ba pare ko ci kenn googu nga xam ne dañ koy takk mu muur ko cap day mel ni kon dañ ko dugg sawar pare ginnaaw ko di ko jéng déedéet ñaari jéng yi mooy jiitu waaye su borom fii da koo taqdim rek da koo jiital rek waaw maam dugal sawara gi mooy mujj suñu borom nee na nii la suñu borom di jëflanteeg ña nga xam ne buñ ëllëg yomal ci loxo càmmooñ la ñuy jël mbokk yi ñun ñi ñëpp jombut ñu bokk ci ñooñi ki nga xam ne mooy leeral wax suñu borom tabaraka ji boo wëttut bu ëllëgee yomal xiyaam ci ñooñi lay bokk maanaam man mii di ko leeral boo wëttut ba yomal xiyaamee ragal nako lol nak ci ñoo ñi nga xamne ne ci loxoom ndeyjoor la ñuy jël ba par nag ñu kenn lañ ca la ñuy bokk euh, te ñi ma koy waxal man nañ ca jaare tiit man nañ ca jaare delu ci seen borom bo waxe ñi dem ñu dem man mi ko jangal dem sawar loolu mën naa ne nit ki jàpp gaañu di leen jàngal leeral leen farfa jox borom ta taala ba yoo ma xeen moom dem sawar ñu du jàngal dem aljana moo tax al imam ibnu jawzi euh, ci sayyidul khatir dafa wax ni Euh, daa nekkoon koo xam ne bu ma sana toog di waare lu ma fukki junni nit ay junni personne daa daan toog ci ginnaawam di ko déglu nga xam ne lii li tuub li dugg ci lislaam jaare ci ay loxo moom Ibnu Dawsi ëpp na fukki junni doomi aadama ci ak dundam ndax waareem yi métti waaye nee na am am lu jekk-jekk toog ci sama xel daan ma kay fa bik ya Ibnul Dawsi yow Ibnul Dawsi waaw bu fekkoon ne ba yomal xiyaama ñii leen waar ba ñuy dellu ci seen bopp ba yaa tax ñu baax bu yom xiyam bu ñëwé aljana yow nga dem sa war nak allahu akbar yalla yalla musul ñu ñëpp dal ala فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما اغنى عني مالية هلك عني سلطانية فلا نك ديغري تو واسن بروم ن جيلن كو جل تابل كو سوار جيلن yew ko jengu ko ci dakk ba jël teen yo xamne ne seeni digg la gudd lol ngeen tak ko ci ba dóorul di ngeen tabal ko sawar diko jaar legi nak lu waral lolu manam sun borom ci yenen lay sun borom mi ngi leral mu meñ da nga la ko ko lu mel non mbugal metti mom ku mel non lan la def lan moo waral lan mo waral sun borom mbugale ko nonu mom ko ki nango ci loxam day joram sun borom nonu mo lu ko waral سبب نن إنه كان لا نعرف بالدونغلا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين لذا المام كي قد يكون دنا نعرف بالدونغلا ونعرف بالجيش مولش مولن تد سبب نن إنه كان لا يؤمن بالله العظيم لتخلو لتخ كوكين خم نكين دجر ولا جلي لتخ نج نجف لانتك ممنوني ما إنه نك ممكن سبب مين غير السبب kaana nekkoon na laa yuminu di bañ a gëm billahi alazim billahi azim yàlla ci yàlla billahi azim moom laa yumin billahi di bañ a gëm yàlla alazim yàlla bi nga xam ne mooy ku tedd ki alazim may aji tedd aji mag yàlla ku mag sabab sabab yi nga xam ne moo tax suñu borom jëflante moom noonu sabab yi nga xam ne moo tax mu dem sawar sabab yi nga xam ne moo tax mu tàbbi ci dund bu métti googu tiis woowu yi ay mbir yu bëri bëri la waaye sun borom fi ñaar la ci te ba ci njëkk moy lan innahu kana la yumin billahi al adil moy dafa gëmutoon sun borom kon bi man nga ni moom jullit bi man na julli bi gëm yàlla mo léegi nañ yëm na gëm na yàlla mom xelam mana dal xayna bi yéefar ñoo mom moy ñi nga xam ne gëmuñ ko mo xam muy an nasara wala muy al yahud wala al majus wala al falasifa wala al dahriyun aqiyat ad-din yi am yef innahu nag moom kaana nekkoon na ci àdduna laa yuminu di bañ a gëm yàlla al azim suñu borom nee na la ca njëkk li ko yóbbee lii la ci njëkk mooy daa gëmutoon yàlla waaye bu ñaareel mbokk yi moo tiitle xam nga bii mënees naa wax ne kon jullit moom bu xamee ne bu xasee ne gëm na yàlla moom kon mën naa am mucc na ci noonu ñu jëflanteeg waajoo ji nga xam ne képp képp ko jëflante waaye bu ñaareel moom nee na wala yaxuddu ala taam miskin ñaari mojër tit mooy wala yaxuddu daanut soññee daanut ñaaxe daanut soññee daanut ñaaxe ala taam miskin ci leel aw miskin maam ñi nga xam dañoo ñàkk amuñu dépense seen xale yi nekk nga dunduñu dañoo ñàkk daanut soññee ci leel leen maanaam euh, sarax leen wala joxe leen azaka wala dundal leen wala dimbale leen ci seen wala dund daanu ko def inna lillahi waxut daanu ko def de da dañu ci soññee maanaam danañ gis nit ñoo xam ne yor nañu alal xëy na mën nañoo dimbali ñi nga xam ne dañoo ñàkk ñi nga xam ne dañoo pauvre ay miskin lañ waaw ah, moom moom moom mu gis ñu mën loola te jéem leen a soññ pour ñu def loolu maam ñàkk soññ googu noonu yi moo waral suñu borom tabaraka taala mbuug eh, natt ko mu nangoo téeréem ci ndey ci càmmooñam ba tàbbi ci mbugal moom yi waaw moo tax aliwa ibn xiyaan day wax ne bu fekkee ni li tax suñ borom nattu ko mu jël téere bi ci loxo càmmooñam ak ni ñu ko bëggoo mbugalee nii xuduuhu fa xulluuh summa aljahima salluuh summa fi silsilatin zarcuha sabcuuna ziraan faslukuuh li ko waral mooy leen daanu soññee daanu soññ nit ñi ci sarax daanu soññ nit ci ñuy saraxe daanu soññ nit ñi ci ñuy leel miskin yi ñuy dimbali miskin mom ñinga xamne xam ne mënoon nañ ko te daal ko def mom mom xamu fan lañ jëm ndax ki mom li tax sun borom mbugal ko mbugal mi mooy da daanu ci soññee man daanu soññe nit ñi ak di len ñaax pour ñi len miskin daanu ko daanu ci soññee waaw naka mook ki nga xamne ne moom daanu ko def moom mom mu lay war ci mo lele dem dama man lu ñak lu ñak fu la mëna na ko dugal sawar lu lu ndaw mëna na ko dugal sawar kon lo ci déggé moo di ndakate li ñuy wax ak nay maanaam bokk na ci li waral mbugal yomal xiyaam mooy ak nay wax nag nay ci nay sa jëm maanaam nay ci li nga war li nga xam ne nay nay ca dëgganut am na loo xam ne nay ca dëggan waaye na loo xam ne nay ca dëgganut waaw koñ bi nga dëkk am ñu fi nekk ñoo xam ne dañoo ñàkk bu ñu añee du ñu reer wala bu ñu añee bu ñu reer ñu ndékki wala bootu sax léegi léegi léegi maanaam ndékkee añ duñ ko def reer lañuy def waaw ah. ñooñu xam ne te nga xam ko te yow xam nga ko nga yor ay ay milliards yor alal ju bëree bëri waaye doo mës a jug ba jël sa alal dem dimbali leen wala war leen seen dund surtout ci koor gi nga xam ne ndeysaan am na ci doomi aadama yoo xam ne amuñ sax lu ñu doog a far maanaam fi ñu àgg ci ñàkk doy na waar ah doomi aadama yëpp dañoo ñàkk nag moom waaye ñàkkuk alal ak ñàkkuk dund moom am na ci ñoo xam ne fiñ ci àgg doyna war waar nga ben moom koñ taxam ko te doo leen jéem a lijjanti nga xamne ndogu sax lu ñu ndogoo sax buñ ko am te yow jema la ñu lijjanti te yow ma te doo ko def euh na nga xamne ñi nga xamne ne da diñ diñ ci soññee ñom la yalla di mbugalé ni mu waxuma laak ñek ñaw yow mi ko mënta do ko def na mom yow mi nga xamne man nga soññ gaay ñu bax defoko yow la yàlla di mbugalee nii waaye waxuma nag ka nga xam nag moom moom daa war a baax te baaxut moom moo ko war a jëf kon laaj mooy de de waxtu ko doomi aadama yi nga xam ne dañoo nay ak ñi nga xam ne dañoo nay ba pare di di digal nañu ak ci ak dañuy maanaam boo bëggee jël sa alal def ko yàlla saraxe ko wala nga joxe wala nga joxe ci asaka wala nga ne noonu ni soxna yi waaw na ñoo xam ne fi ni ne euh, ñoom yow dëkk waaye boo bëggee alal ji ngay jël diko jox ay jaam di ko dimbale ñom neexu leen maam dañuy ragal na sa alal day jeex wala dara ni metti waaw buñ sañoon daal doo ko joxe ñooñu ñeen xam ne soññe wuñ ci jox leel aw ñam moy tax kon bu buñ ko tuubul suñu borom taal ni lañu mujj wa inda waye nga deg ci nga ko ndekete joxe aw ñam maanaam di sarax aw ñam mo xam di dimbal dem ay ñi xam ne joxe aw ñam bokku na ci li waral bu ëllëg yoomul la xiyaamee nga jël sa téere sa ndeyjoor ndax kii nga xam ne mbugal mi ko mbugal mi ko dal ma nga tàmbalee ca jo te nangu gim nangu ca waxu càmmoñam la mooy lan benn daa gëmutoon borom bi taala ñaare bi daanul soññee daanul ñaaxe ci joxe aw ñam allahu akbar euh, naam euh, mbokk mi gannaaw bi nga seetaane vidéo ba pare ñu lay ñaan nga bës fii ñu bind jëm bu fekkee gande si chaîne bi nag bësal fii nii ñu bind après nga activer cloche bii nii mën nga tamit wax sa xalaat yi nii si commentaire yi lii nag doo ci fay dara te dina tax vidéo dugalati jot jaa ngeen